bu len faté abonné ci sen sen YouTube Samsung TV jant bi leral aduna té activer cloche de notification bobé ngeen sen ci sen écran samsul huda amat afaqiya samsul huda amat Samsung TV mooy 3, télé. Samsu TV mooy suñu télé dinañ ko seetaan. Samsu TV ñooy suñu télé. Samsu TV mooy suñu télé. mooy suñu télé dinañ Samsu TV mooy suñu télé dinañ ko seetaan. Samsu TV ñooy suñu télé. Samsu Samsu Samsu Samsu TV. Samsu TV la ñuy bëgg ba aljana. Aywa di ko bëgg. ana waa daara ji Shamsu TV la ñuy bégee ba aljana waa Shamsu TV la ñuy bégee ba aljana di ko bégee waa aljana la kar macha Allah laf cat la fati cat ci man ak sama yeb moroom ci yow sa kaala gi yal na ràpp ci barke yaa rasulallahi Ababacar yow yaay secrétaire Seydina Muhammad ndax dem bu déglu naa Asiya bu tiwaawoon mbay donde ndi sarax naa yoneen yéeg na ba mu fa liggéey ci kanamu borom bi tabaraka wa Jibril ni ko bu may dem di seey dafa taxaw jibril wàcc yaa rasulallahi dem nee ki ko jëkk woo muy kan Ababacar ni ko foo mu ni ko maa ngi nii ci kanamu borom bi tabaraka wa taala Ababacar sa tur wi du sa sens la waaye nag ndey mooy sa yaay ni nga mën a mel laf cat kan moo la yar sa nijaay sa nijaay ja la yar mooy paap paap ma ñu dippee maamam tubarkàlla kar macha allah yal na doole xippee ajjanay firdaws si barke yaa rasulallahi moo jur doom caat loo ko muy ndaak ñu dippee ko sa maam mu ne ana sama taaw ñëpp ni tekk mu ne ana sama taaw ñëpp ni tekk mu ne ana ci am laay laaj ma ni ko maa ngi nii mu ne ma may naa la ko addina ak alaaxira bu daggal ka nag ba xëy dem bar sàq parcuun yal na doon la xippee àjjanay firdaws parcuun serofot mu yar la nag ci yarin bu baax ci yar bu jub nga teg sa tànk ci siraata mustaxin teg sa tànk ci saraata mustaqiim aaji Malick Malick si di sa maam dundal ba mu neex la géey ñaay ma siree ñaay say may di baawaan sa yaay jii neew ma muus ba ma ni ngiw mu ne ma sib ndax man fi mu ne dama retraité ndax juróom-ñaar fukki at ak ñaar du ñaari fan maa ngi dugg ci sama juróom-ñaar fukki at ak ñett ren maa la mag mag ku la mag ndaag la woon ak jooje faal jëkkër ma songo kooku yàgg na booba yaama xale bu tuuti la rek yaama nag xam diggante ak sekk ak jooje faal mu di ko doxal ba nëgëni si yaama bàyyiwu ma benn woon yàlla bu ko yàlla bàyyi sa yaay jii kontaan na si yow ba sa kanamu yàlla ak yonent yàlla Muhammad ñaanal naa ko ci barka rasulullahi bi nga jóge nii bii bu déwénee yal na nga ko yóbbu Màkka mu siyaare ji rasulullahi yàlla am na ko man na ko te yal ko yàlla matale taraanga bii nag booli beñe la ak juróom benni carton boisson sa sœur yi nga bokkal ndey ak baay départ ba di ndey faal te du taaw bu ñuy wecceeku niiw borom niiw bay laaj càngaayam ku yaayam dalin kóor ku bëgg ni kóor ku bañ ni kóor mooy sàmbara pijong yëgul ci mbooya dara ki du apprenti jeeg cun maxtaar doo koog sooru sag maas doo ñaan say morom xooñ serofot sa jëkkër la gërëm nee na bala moo dee mu gërëm la ndax du dee kenn di gërëm sa gannaaw te du ko fekke yaa dundal ba mu neex la say ne bay baabaa taala faal nee na fay nga courant fay nga ndox jël nga tabaski jox ko mu tabaski jox njabootam waaye yéen a bokk mel na maam mi nag doo sayaan de jërëjëfati jërëjëfati jërëjëfati Ababacar Sadiq sa yaay jii nee na tey bu am dayoon di ñàkk waatal naa la ko ci seexal xalifa ak werdu salaatu fatiha bi ma jël dina la yeewal fii nag taraanga bii la sa jigéen ñi jox nag lu ñu xeeb la man retraité naa waaye moom retraité loolu ma ndax dafa dawal oto ba sama buntu kër gaare ko ni ma duggal ma ne ko fu ma jëm mu ni ma sa doom moo jóge màkk foog nga dem ma siyaara ji ko nga jël taraanga jërëjëf Fatick Gueye Ndiaye ma Siré Ndiaye Fatim Penda Issa Dieye ah. kon jeex na. ah jërëjëf waaw dëgg la. dëgg la wallaahi wallaay sekk sa gidaar waaw ci ci ci télévision kon nga santal ma télévision Thiénaba woowuma leen sama kóllëre diggante ak ba ak diine ji ci leen ma fonke ba ne duñ xeeb sama dara surtout nag ma may jógee Màkka di leen ma topp ba Màkka topp ma ba aéroport topp ma ba ci wallaay nga santal ma leen bu baax waa cene ba tubaar fakal la kaar allah Amari Ngoone Ndaagay seen maam Samsu TV ñu sant yàlla julli ci yonent yàlla Muhammad alaaji bii daw safa daw marwa sànni jamra ca minam te lebul biyee laf cat nee topp ngeen ko ba makk ci seen télévision di ko caméraman ba excel ko aéroport delloo si waat ko ci biir kër gi mu ñaan ci yàlla julli ci yonante yàlla Muhammad képp ku demagul yal na siyaara ji Seydina Muhammad képp ku demit yal na nga jëliwaat kaala ga si barke yaa rasulallahi kontaan nañu <clears throat> bég nañu yal na yàlla bég li ci des ci darajee seexal xalifa seen maam waaye nag <clears throat> Amari Ngoone mooy seen maam ñii ngeen mën a mel su ngeen wàccee seen ànd rek ànd bu ngeen yegg taxaw jërë ngeen jëf jërë jëf jërë jëf bakk na toon say loxo man aana caam maa nattoon say loxo wàcce la kër ndaak ndaak def la nuuru ba kenam nga nekk faak màgget jaañ bi sànneen te dara masul ñaaw ba sum jooni maami tey nga sayal sama càmmiñ la ba mu caatlu mu ne tif ne aana caam may naa la ndaak te yàquloo ko benn yoon yàlla bu la yàlla yàq lii nga dese njaboot yal nañ sa njiglaay faala njaga yaaram jërëjëfati kontaan naa bég naa kontaan naa bég naa darajey sëñ Babacar ci kontaan naa bég naa te nag yi taxaw fii di wax lii muy wax ndax à 71 ak léegi ñaata at la 71 la ndaak àndoon ak jooja faa ca kër Sow dama xonq rek waaye duma liir am naa juróom-ñaar at ak ñett ren ma sant yàlla julli ci Seydina Muhammad ndaag jooja faal amul fu mu ko yóbbu ci ak waalo ndaag it amul fu mu ko yóbbu ci ajoor ñu bokk ndey bokk baay ba yàlla boole leen ñu bokk benn aju màkkatal mu xaram bokk benn néeg bokk benn néeg ajaa delsi waa Sénégal tubaarkàlla kar macha allah ndaa kenn du moom baram sànqal si sëñ Mansoor tegoon palaasam lu njiin njaaga te mooy njaag yal na doole xippee àjjanay firdaws yàlla bàyyi ko leen fi yàlla bàyyi leen fi suturaal leen barke leen si barke yaa rasulallahi kontaan naa bég naa Ababacar kontaan naa bég naa yàlla na ko yàlla ubbil ay xéewal ak ay ngëneel ndax mooy taaw bu taawee kuwul lépp mooma nag lu waral tey rek mooy njiit te lépp mooma fu ma jullee nag dama koy ñaanal yal na ko yàlla teral ndax yàlla mooy teral doomu aadama te ko yàlla teral nga tedd yal na ko yàlla teral may ko fan wu gudd may ko ay xéewal Pape Seck mii fépp fu ñu tafa sekk waroon a taxawu Pape Seck ak Moodu mi man dañ ma fay taxaw Pape Seck daf ma woo sama kër ni ma yaama kaay jël xar xar mi li ma si jaay ëpp na un million bari den ji kuy mi ma tëbaskee nañ ma ci juróom fukki junni xar ko xar ma dañuy jóge ba tefes ñëw di ko seetaan si xar mi amul lu ma ci jaayu li ma si jaay ëpp na un million te damaa toog sama kër mu woo ma ni ma kay jël xar mi ma ñëral la ma ne ko yebal xar mi indil ma Ousmane Gningue moo yeb xar mi indil ma xar mi di jur par ñaari doom xar mi ku ne ca koñ ba xar mi fii ba sali fii ba Dakar am nañ ci xar mi aw jiw ba nëga si xar mi su ambee dañ may fay ba fi mu ne nii mën nga ëmb ba dis bis mu ne ñu ñëw fay si ma ma ni du ma jaay lu juddoo ko kenn gënu ko moom it dama koy ñaanal yàlla na sumutu fa sekk aw fan te dese seen barke ndax mënoon nañoo bokk tafa mënoon naa bokk ak ndaag nday ak bàyyi ndaag dem tafa des mënatul ñoom ñi ñu fàtte ñu lu xew ñu woo ma téléphone teg ma ci seen oto yóbbu ma bu ma ñëwee ñu joxaat ma paas boole ko fonk ma lool daaw sama kër day taa uma fu ma jëm ma woo Moodu ni ko Moodu damaa bëgg nga abal ma sa oto bi dañ maa may suuf nga wax ma ñaata laay fay mu ne ma doo fay dara yónnee ma oto yónnee may tibbkat yónnee ma sa fóoram ñoo ma tibbal suuf sottil ma sama kër ba sama kër a nga ne tey taawul taawul daaw taawul ren té loolu lepp seenu mbax ko indi ma di len ñaanal yalla nañu fut sut mutu fa Alfan. aw fan ca des barke ba ndax dañ ma yëg dañ ma fonk man lima gëna bëgg man wu mako ma defal man dama soxla ku ma té ñoom dañ ma yëg fuñ ma gisé rek seen bañ gën na fuñ ma gisé ré nañu té loolu moy aduna àdduna nag weet kenn gënu ko kenn gënu ko kenn gënu ko ku mëna dox mbokk ku mëna némé ku mbokk ku mëna top tok mbokk la kenn gënu ko xambaan mi yaayam ñun ñoo koy joxe sagar bërki démb la nelaw waaye lu jóg mu jóg taxaw lu jóg mu jóg taxaw sëngam luwul dara bàyyiwul dara moom itam waaw dara sëngam luwu ko bàyyiwu ko lu jóg mu jóg kii toog ne atu sëñ Ousmane sekk ñoo ko bokk sëñ Ousmane Seck danaan taal otoom ñëw sama kër ànd ak cekkandoo yi su ma ñëwee mu ne ma dama laa gëj a lu xew këram du ma boole kenn téléphone am lay jël woo ma moom sëñ Ousmane moom mi toujours ñoo bokk ëttu sëñ Ousmane fii ba Thiénaba lu fa xew maa ngi ñoom ca Thiénaba maam taala mii fi des tey day taal otom ñëw sama kër di ma seet si di ma nemmeeku waa këram ñëpp seeni yaay di ma seet di ma nemmeeku sëñ Ousmane Seck tegoon ma foo xam ne bu ma jaaxlee jàq bàyyi ngi nii mus na maa toll ci benn condition boo xam ne du ma ko nettali kenn mbay mi rek moo ko xam ak man ak yàlla suñu borom mu ne ma yaa ma dawal te sëñ Ousmane ma dem te sëñ Ousmane ni ko sëñ Ousmane mu ma ne ko nangam ak nangam ak nangam mu reetaan ni ma demal ñibbi jullit day jéng waaye du daal eh. ba ma xëyee talaata 10 heures la sama téléphone sonné yàlla réglé problème ba mu sedd guyu nga xam ni nag ñoom ñii dama leen a jàpp sëñ Ousmane Seck kere ba mbay di sanc këram gii kere laa mu jéggi santeeg moom lu mu wax tàpp ma ni ma ndax soxna yaa ma kontaan nga ma ne ko kontaan na mu ni ma déwén de duma la fi bàyyi dama lay yóbbu ca gàmmu ca na baga ndekete bu samedi ba del see day dem ñu toog fii ñuy waxtaan ba ñu gunge ko ba ci teen bi mu root ci teen bi nii naan leen ci ndox mi ñu naan mu ne mbay teen bi de sam la mbay ni ko bisu màkk la bënn mu ko teen bi sam-sam la am ñetti kàddu nag yu ma tegal mu won ma ginnaaw ma ni mbay waa ma ni ko sëñ Ousmane li mu wax dégg nga ko mu ni ma lu mu wax ma ni ko ah nit de boo yàggee toog ak moom muy wax nga dem mu wax ay baat yoo xam ne mosu koo wax am na lu ko waral moom mi mu ni ma bàyyi sama jikkoy maam jooju yow ya, ma yëfu mak rek ngay wax sama yëfi mam yoy do ko ba ma ko mbay boo yàggee deg wax xam wax lu ko indi seigne Ousmane day ñetti kàddu yi mu ñu wax amna luma ci tit naka te bobu ba matale la ak tanguto seigne Ousmane sa mbaax na ci ñun ak fanen ku fi dee di ba laakin donoom mooy boroom alquran sëriñ Ousmane ku fi dee di baax laakin donoom mooy boroom alquran jumaa jaa ngi nii yaa ko fondement moom mi keroog ba ma woowee fajar ni ma sëñ Ousmane neloon daf ma ci tegal dafa am wax yoo xam ne bu la ko kilifa waxee am na lu tax mu wax la ko moo tax sëñ Ousmane nag këram ma dee rek nekkatuma ci kaw suuf mooy tax ma ba ko ba jabootam bu ma jàqee jaaxle nag woo maam Amari Ngoone Ndaak woo Seexu Canaba te aajo booba yàlla da koy faj si barke sëñ Babacar sëñ Fallou Mbacke moo tax nag man maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp jataay bi képp ku demoon yàlla na nga dellu ku demul woon yàlla na nga jëli sa kaala yàlla na jataay bu yàgg yàgg ci barke Seydina Mouhamed mi nga xam ne moo waral jataay bi ci barke Seydina Mouhamed sumita usmana sonnurayni mal jaana mal سنورين ملجأنا ملجأنا أنفع المال في الإسلام معوانا سلموا رسل جنبا سل كل من عرفه تعلم بأن غبي بل ناس عثمانا معلم ناسخون جب أبو ورع waaw bu ma doon fanaan aéroport jaral na ma ko waaw waaw moo ma yóbbu te moom ma jël si trois heures quatre heures du matin la dugg këram waaw wax dëgg yàlla maa ngi koy sant di ko gërëm mun ma ko fay waaw mun ma sama ndijaay mun mënu ma leen a fay Pape Seck moom dara fët ndax maa moom man naa ni cere ak soow la waaw loo ci dem rek mu dem waaw ku am lu la naqari sax boo gisul Pape Seck pour man du réglé waaw ku am lu naqari Pape Seck boo gisul mbay du réglé wu toolu ci rek soow la waaw yàlla na ko yàlla ma ko ñaanal naa ko ca Kaaba ga nag lu ma man yàlla na ko yàlla nangu rek ak ñëpp nag waaw jërëjëf salmura sal cane ba sal kull man arafu taalam bi anna habib bal naasa usmaana jaraxta qardan xaaya مرجع الكرماء واو طرحت خرد النخاء يا ملجأ الكرماء واو وقست مرتبة تؤتيك إيمانا سل مور سل جنبا سل كل من عرفه تعلم بأن حبيب الناس عثمانا فالذكر قول والخاق منهجكم واوا ذكر قولكم والخاق منهجكم واوا ورد قوتكم يا قبتي جانا سلموا رسل كنبا سل كل من عرفوا صلى الله عليه وسلم بأجرني بالله وإنا أوسع def leen ci yoneen bi sallu ya alal kamali sa waajaay mooy rammu jaami man hawa kullal maali hatruhu ma zalaha ya muhammad ya habib halal ali wasal ya muhammad kunta bi على الآل وسلم أجرني من لغب وإنا أوزاري سيحا نبي موسى نجيت يا إمام الأنبياء أتدف لني يا إمام الأنبياء أنا وماك يا إمام الأنبياء ana njol maka ya imam al-anbi atadef lenni ya imam al-anbi أنا جل ماك يا إمام الله أتدفلني يا مالا زل أسي أتدفلني يا سراج الله أول أتدفلني دا مالكك كان موكو ويفال منا في بالي بريا وساجا يا أتبريا يا خيار أمين وسالا أمين مصر آمين امين على أحمد من ربه صلواته لولا حن ولي جاد جل جلاله كصف سيدنا محمد والامداد من الفضل منير النواحي أنا سيدنا محمد ولولا لم تدري خليقة الخضر بي الله كنوز البوادي الله جعل سيدنا محمد تغلط في أسلابي من صلب ساجد إلى ساجد ما زال مجدك راسيا وإذ كنت في أرحام تابا ولم تزل تطوف بك الأملاق ترقى المراقيا بمولدك الإيوان كسب سيدنا محمد صارت منكسا وللماء غور بعد ما كان جاريا وأقصى ليل شك والكفر والمحا وأتبع حسب دين للناس باديا دوم قصفا دوم مروى زيان فجمرة زيارة مزدربة تحوم عرفات كسب سيدنا محمد بمولد الدنيا زغن وتزين تشكن دمون ودان لأرباب عقول الأمانية بمولد الإيوان صار المناكسة وللماء غور بعدما كان جاريا سيدنا محمد وعسق ليل شك والكفر والمحاء وأتبع سبق دين للناس باديا سيدنا محمد ويتلاحت وحوس الحادي حين مشرت ودان له من كان فيه مماريا وزب وصل حب الدموع عزيرة ولا تلتفي لخير بحب فانيا كسوف سيدنا محمد نني يرتي بكو غبك محبته يمن محبته امن محبته ورحمه محبته وتخسو من الانوار من كان عاريا فويل قرش اخله وده من الغرباء غر من كان نائيا وحجاه جبريل بوحي امرا mana ba ali arwa julayadiya muhammad alaaji ba nga demee mbaa ñaanal nga nu seyduna muhammad foofa loo fa ñaan dana am nega matal nga sa ruur loolu moo wóor alaaji mbay bala yàlla yóbboo da ngaa sangu ba set nga sol say sër yu baax rafet nga yeesal sa tuub xëppoo sa kila kila wu doon ba fa jógee dem nga rawdu rasulillahi jullit bi moo ni woon ma bayna min barixi wa qabrixi rawdatun min riyaadil janna seyduna muhammad nee na ku ma bi may dund texe nga waaye ginnaaw bi ma faatoo ku ma ziyaare texe nga seyduna muhammad moo ni sama diggante rawdu bi ak sama minbar bi ku fa toog yaa nga aljana alaaji mbay fekkuma la ko abadan innal mana ayla taxmimil masa ya xalifa wa irji wirdaqul azba ay waay la tarjar bisa abadan innal mana ayla ay waay tak taalibe seex loxo ca kawrit wirdaul azba donc bu leen fàtte abonné ci sen sen YouTube Samsung TV jant bi leral aduna té activer cloche de notification boobee ngén di seen ci sen écran samsul huda amati afaqi allah salmul huda amati TV mooy suñu Samsung TV mai sunt tele de TV mai sunt Samsung TV mai sunt tele TV mai TV mai sunt TV TV TV ba aljana ay waay di ko bege waay ba aljana ana waa daara ji Shamsu TV la ñuy bege ba aljana ay ba aljana waa Shamsu TV la ñuy bege ba aljana di ko bege waay aljana